asalaamaaleykum mbokk yi tey la ajjuma juróom-ñaari fan ci weeru diggi tabaski ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar ci gàddaay yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dëppoo fukki fan ak juróom-ñett ci weeru juin ci atum ñaari junni ak nit ak benn juróom-ñaari fan bokkul ci lim yu fàtte yi lim bu rafet la mënees na cee wat wala daloo ci wala takk ci ab sëy wala yeggale ko ca wala sanc ci kër wala tàmbali ca dara ak yu mel na ñoom bu dee bisub ajjuma bi liñ ci gën a taamu mooy ku ca daloo ñaanuk bis bi yow yàlla maa ngi lay ñaan nga musal ma ci jàngoroy siti ak ndof ak ngaana ak mbooleem jàngoro yu bon yi allahuma inni audu bika min albarasi wal junooni wal jutaan wa min sayil asqaam xadiisu bis bi yonente bi salallahu alayhi wa sallam nee na képp ku seeti aji feebar du di xuus ci yërmande sunu borom ba keroog muy toog bu toogee it du dañ di nuur ci yërmande sunu borom ji xadis bi ahmad moo ko nettali waxtu julli yi suba waxtam dana tàbbi juróomi waxtu wutegal ñaar fukki simili ak juróom benn tisbaar fukki waxtu ak ñett wu tegal fanweeri simili ak juróom takkusaan fukki waxtu ak juróom ak juróom timis fukki waxtu ak juróom ñeent wu tegal fanweeri simili ak juróom ñaar gee ñaar fukki waxtu wu tegal ñeent fukki simili ak juróom ñett loolu mooy waxtu julli yi Touba ak li ko wër bu fekkee nekkoo Touba soo ko féetee ñaar fukk ak juróom ñaari kilomètre ju ne wàññil benn simili soo ko féetee sowwu wala gànnaar wala saalum téeméeri kilomètre ju ne yokkal jant bi dana fenk juróom benn waxtu wu tegal ñeent fukki simili ak benn gisoo fukki waxtu ak juróom-ñeent bu tegal fanweeri simili ak ñett yàlla na lu yàlla nangul te nangul leen amin